tey Cheikh Ahmed Tidiane Ba directeur général des impôts et des domaines. Thiès Thiès nga xam ni mooy sama dëkku xol ndax ñëpp xam nañ ne sama soxna fi la juddoo donc je ne suis pas à Thiès mais je suis de Thiès c'est c'est normal. alors ma ñëw euh, feddali kóllëre cofeel bi ma am sama rak sama xarit ak ña yàlla def ñu bokk fi ñuy liggéey mu nekk ku xarañ ci liggéeyam d'abord ma gis euh, ne mi ngi yëngu ci politique mu woo ma ma ñëw. bi ma ñëwee fii nag vraiment am naa ci mbégte. xam ni euh, suñu mbébét yëpp benn la suñu mbébét mooy réélection président Macky Sall te li ma gis wax dëgg doy na yaakaar naa ni li ñu gis tey Thiès mën na war na ni Habib Niang liggéey na. parce que li ngay def si terrain bi rek mooy mooy mooy moom ngay wane si yu mel ñun ñëpp ñu ngi fi woon des responsables de l'APR d'ailleurs on a fait appel à lui pour qu'il intègre l'APR je ne sais pas s'il va y réfléchir mais je suis convaincu que la vocation des waaw si wolof euh, li ma gëm mooy mouvement de soutien yi ñuy def yëpp ñun ñëpp suñu mbébét mooy un jour dugg ci parti politique parce que defe naa loolu mooy modèle bii Sénégal choisir pour accéder au pouvoir mais xëy na am na ñoo xam ni euh, parti yi doy ñu leen wala en tout cas li ñuy wax ci biir parti doy ñu leen wala ñu ñuy def ci biir parti doy leen moo tax ñu nekk ci ay mouvement mais je suis persuadé que bu président Macky Sall euh, yëpp dina ko réorganiser waat ba nga xam ni dans l' unité dans l' unité on va travailler pour le bien du Sénégal. da nga xam benn kuréel boo xam ni. no mais non mais ñu ngi liggéey liggéey bi wër Médina je pense que maintenant wax naa leen ni mbir mi yaakaar naa ne ferenkulaayu la ku ñëw Médina ñu ngi lay ni bàyyi rek nga ne def sondage ñun politique aussi da am ngëm-ngëm politique da nga am fulla am fayda. di wax li nga gëm li nga xalaat li ñu gëm li ñu xalaat tey mooy que ne Médina ñun moom nañu parce que dañ ko liggéey te yaakaar na ne suñu borom ak euh, euh, suñu borom dinañ si jàppale ndax boo liggéeyee mu fekk donc benn problème Médina vous verrez aux prochaines élections la Médina sera derrière le président Macky Sall. mais kuréel gi ngeen teg xanaa dafay tekki ni bennoo ji dafa sooxe. non bennoo bu sooxewul comme ni ma ko expliqué dafa am sénégalais yoo xam ne ils ne se retrouvent pas dans les partis parce que nee naa modèle bi ñu choisir Sénégal mooy le parti pour accéder au pouvoir mais am na ñoo xam ne loolu doyu leen am na ñoo xam ne dirigeants yi doyuñu leen ñoo xam ne ñuy parti doxalee doyuñu leen ñu ne dañu def mouvement soutenir mais li ma gëm mooy que ni mouvement yi ñu def yëpp incha allah en tout cas mouvement yi soutenir président Macky Sall bu faloo yàlla yaakaar yàlla dina ko def loolu yëpp dinañ ko réorganiser waat ba nga xam ne on aura un parti au Sénégal parce que Sénégal nag li fi xew moom dafa jéggi dayoo vraiment di une multitude de partis di chamayu tous les jours sur les réseaux sociaux dans les médias loolu dafa war a tàkk vraiment euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut stopper cette marche démocratique mais je suis en train de dire qu'il faut réorganiser rationaliser donc loolu dañ ko xoolaat au lendemain de l'élection bi ne mouvement yi seey daal ci biir parti ñu tànn ne dañ leen di soutenir bu fekkee ne loolu moo gën dinañ ko def nee la il faut ñu xoolaat ko réfléchiraat repenser loolu dañ ko def dinañ ci réfléchir ñun en tout cas commencé nañ ko au niveau de la CRTP defe naa ni bu ñu Macky Sall faloo aussi dañ ci euh, jublu. Thiès candidat yu bëri taxaw euh, di laaj réew mi ñenn ñi sax ñu wax le ay candidat yu sérieux la euh, yëf yi narta yomb xanaa. Thiès comme ni ma waxee rek dëkk boo xam ne dafa am histoire politique waa Thiès dañu xarañ si mbirum politique. moo tax nee naa leen sànq li ma gis tey mu yéem parce que Habib bu fekkee ne moom du politicien en tout cas du politicien professionnel comme ni ñu koy tuddee mu def li mu def tey man loolu def ma yéem parce que yaakaaruma woon yëf naa ko fekk sama njort li ma njortoon lii ma gis euh, euh, ëpp weesu na ko donc Thiès et difficile mais Habib mi ngi bay waaram et je pense que bu ñu ko jàppale comme ñu ñun nañu def tey président Macky Sall mun na tëdd nalaw parce que du moom rek ñu ne ñu ngi liggéey waa Benno yi ñu ngi fi gis nañ fi tey honorable ñeneen ak ñeneen je pense que ñun ñëpp bu ñu booloo nekk benn Thiès mën na euh, nekk derrière le président Macky Sall te incha allah dina ko def. Mhm. Une rentrée politique, vous démarrez à Thiès, une ville qui a vu démarrer peut-être votre carrière Non, ce n'est pas une rentrée politique. Je pense que nous sommes sur le terrain depuis fort longtemps. Nous sommes venus aujourd'hui soutenir un ami, un jeune frère, un collègue. Euh, ce que nous avons vu à Thiès est exceptionnel. que la politique, c'est travail sur le terrain. C'est la somme des efforts déployés sur ce terrain qui a permis aujourd'hui à Abidjan de mobiliser de façon exceptionnelle.

Euh, désunis, nous, nous, ne servons pas le président Macky Sall. C'est le temps du président, je le pour le président. Après, si nous avons des divergences, ce qui est normal en politique, euh, nous, les, les, nous, verrons cela euh, après le, le 24 février. Et l'objectif de votre structure, c'est quoi exactement mais je suis en la cellule d'appui pour le triomphe du, Benno. Mais justement, c'est pour soutenir soutenir le président Macky Sall pour sa réélection au soir du 24 février. Cela veut dire que ça ne va pas dans le Bénin Mais bien sûr que ça va dans le Bénin. J'en suis persuadé et ma religion est faite à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas des politiques, qui ne se dans le Sénégal. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut repenser l'organisation politique dans ce pays-là. On voit beaucoup de mouvements. Nous Mais tout cela, nous le verrons après le 24 février. Aujourd'hui, c'est le temps du président. Encore une fois, travaillons pour sa réélection. Thiès, avec peut-être une dizaine de candidats déclarés à la prochaine présidentielle, euh, le combat de Thiès pour vous est important c'est pourquoi j'ai été impressionné par la mobilisation de Abidjan. Puisque Thiès est présentée comme une ville politiquement difficile, et C'est important et ça nous rassure encore pour Vous, qu'est-ce que vous comptez faire Mais soutenir Abidjan. Voilà.